maaleykum salaam waaw man euh, Marie Makhtar Diop j'habite les Almadies di présidente euh, am AFMA amicale des femmes de la mosquée des Almadies waaw. oui ça s'est déroulé dans le calme quand même euh, très civilisé d'ailleurs hmm? vraiment ça s'est bien déroulé ça se passe très bien c'est ça ce vote ça se passe très bien les gens ont été très civilisés il y a pas de problème nous les Sénégalais nous sommes civilisés. Euh, le vote va bien se passer y pas de problème hmm? yéen xam nga ne Sénégal mooy dëkk boo xam ne bu problème amee sax ci dëkk bi bu 48 heures après tout le monde continue à aller da ngay xëy ñëpp xëyaat dem liggéey c'est pas comme yeneen dëkk yi nga xam ne dañuy xeex di continuer non ñun on on est au Sénégal nous sommes un exemple de démocratie en Afrique donc euh, on n'a qu'à continuer sur cette lancée vraiment kenn bañ a def euh, luy luy ñaawal suñu der daal parce que exemple lañ quand même ça bien. ah non mais man man je suis contre la violence parce que violence moom du yóbbu kenn fenn gaañante reyante te ñun ñëpp ñu bokk parce que kenn koo xam kenn ku ci nekk am na kenn kuy sa mbokk Sénégal ñëpp a bokk. koo seet fekk am na lu mu bokk ak yow donc lu ñaaw xaju fi daal élection bu ñu jaral ñuy rayante di defante yu ñaaw bu élection bi jeexee après ñun da qu'est-ce qu'on va faire dañuy am gàcc quoi donc pour éviter am gàcc yooyu façon yooyu nañ ko nañ du yëfu nit daal vraiment ay xale sax ay def loolu mais mag bu responsable je pense que du dugg ci loolu te leader politique bu fi nekk daal vraiment mun na Euh, dem ci pacte boobu daal pacte la non violence non violence daal c'est il faut que ñu di ko éviter lider politique yi daal man li ma leen di ñaax mooy nañu gën a pousse mille euh, militants yi ak mille militantes yi ñu bañ di dem ci violence violence baaxul violence du def lu dul yàq dëkk te ñun suñu dëkk dañu avancer dëkk nag bu avancer da nga am loo xam ne da nga koy daw ay violence daal vraiment du yëfu nit nañ ko éviter ñu ngi ñaar suñ doom yi aussi bu ñu nangu ñoom nekk ci camp de la violence camp de la violence daal ku ci nekk vraiment na nga ci génn parce que bu liy jeexee après ñu ñooy dajewaat nous sommes tous des parents hmm? vraiment hmm? merci beaucoup waaw waa li man tam maa ngi leen di remercier merci beaucoup